Elmarine moom ak keneen yow sax boo jëlee dañ boole de manière imagée quoi. merci beaucoup parce que moo fa toogoon yéen ñëpp ku jël ma boole. mais man man tey dama dama am envie euh, dugg ci Elmarine Elmarine la waxat. yow yaa dugg ci moom. waaw. waaw de ko gis muy ree nii rek. ala mm, la ah, duggal ci moom. moom day dóore. ah xaw ma de. ah moom dafay porté waate plainte. Ah, xaw ma de. yow ba tey mu ngi dugg ci el. ba nga duggee xëy ba tey yaa ngi koy fréquenté. waaw ah voilà la xanaa El Malick moom du le ministre rek la di. ñu ñoo ko bëgg a def super ministre rek mais demal Dakar dem dikk bàyyi avion <laughs> dama ci Assane Mbengue. ay ah, El Malick moom mi transport. ah, ah moo yor air terre avion yeeg. ba gis saa yi daw moo leen yor. de toute façon man ma yoon nekk man li yéen a kaay direct news bi rek laay wax mm. te yéen a kaay bi nee na agent sécurité routière yi danoo nekk dans l'insécurité totale waaw ñu ne toog nañu ñaari weer yoo xamante ne laalu ñu salaire leen ko nangu leen ko nangu mu super ministre am tous njebe mu ne ce retard serait dû à un arrêté que le ministre des finances devait signer al bu taa moom du mu ne selon liggéeykat yi le ministre El dafa soutenir le document ah a soutenir que le document signé nañ ko dëgg la de lépp lu mu mës a wax dëgg la ci réew mi tamit cependant celui-ci reste introuvable lan la document bi ce qui fait que l'ACP ne peut pas payer les salaires ah na document bi feeñ na moo ne na document bi feeñ ah ba bu dee signé nañ ko ba pare na feeñ bi dëgg mhm. mu ne situation bii nag daf ñu conduire soit bluff la bluff bluff mooy nax mu ne wala un manque de sérieux dans l'administration des deux ministère mer ngeen de est-ce que ministre de finances ministre des infrastructures DG ANASER ñoom ñu ngi di diligente dossier kat yi waaw wala déet journal dafa simple laaj laaj leen ko kay ñoom directement kay yéen kay tontu wii ngeen nu war a indi la du dëgg ah en tout cas agent ANASER yi duñu fàtte màggal gi de màggal gi dem nañ ci waaye ak poste yu vide lañ ci demee elmaa li lijjantil li waay ah super ministre lijjantil li du dëgg parce que koppati bi sax dafa rafet naa hmm. ñoo nii ma avancé ni ma xool euh, témoin mu ne après la commission pour le dialogue des territoires le CSE ak le HCCT Euh, passe à la trappe Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax dina obtenir une majorité ca parlement ba loolooy laaj bu nag bu soobee yàlla dinañ ci dikk ci kanam tuuti alors ginnaaw la témoin on y va ñu dem ci beneen yéenekaay point actu bu Alaaji Pedd eh! point actu xam nga tey lu mu xëyee na mu ko oui naan man dee ca gën boo man dee déemal tëdd bul yàqal nii naa naa ko naan man dee ca gën yamu ca de dafa xëy tamit wax ci bii wala bii Eh, eh eh jàpp yow dama lay expliquer xoola xoola mi ngi nii ma lay wax nii yëpp mi ngi nii tege wala bii xanaa xanaa waaw beneen bi ci des na mënuma ko expliquer mais nga jàpp rek ngoone drogue mhm. alcool ak mhm. sexe sexe yi danañu mhm. dégg mu ne jeunesse bi nag ñii ñii mu ñu ngi faat suñu jeunesse bi te benn ba ci yi ma la wax nii ñetti ñetti benn baaxu ci mhm. bu leen bu leen ci jëfandikoo benn du dégg une montée de la criminalité c'est en lien avec la dépravation des mœurs je pense qu'on en parlait hier ici oui. démission de la famille loolu itam dëgg la ci cas yi la bokk mhm. influence négative sur les réseaux sociaux influenceur volé nag volé volé nag mu ngi mu ngi yàq ndaw ñi volé gi volé gi dëgg la de boo voléwul yaa ngi suuf suuf teg yooyu yëpp baaxul mm, xale yi bàyyi leen loolu maa loolu lañ doon woy ci suba. Mhm. xaw ma lan toj sa vote xaw ma lan am na lu ko xale yi di waxee. waaw déedéet mais mais loolu baax na parce que gis nga même ci màggal gi maa ngi koy wax de laa ko doon waxtaan a démb de ma naan la borom daaru ma nga ci def ma nga ci def. si si ñu ngi ciy wax chaque màggal bi bu màggal bu dajeeg ñoom da koy def. waaye ah. bàyyi leen bàyyi fóotu bi naan bi euh, jamu bi. Ah. Ah, ak sàngara si bu ndaw bi ak bu mag bu sas bi yooyu benn baaxul ngeen ngeen bàyyi chèche yi dégg nga yi tamit baaxul bàyyi leen chèche yi ah ngeen ngeen yem ci seen pooji ndey ngeen jàng ngeen kii et puis sexe bu leen ko def sujet tabou lii nii yëpp dafa accessible trop rawatina ci ndaw mais c'est trop facile looloo tax xale yi di ci di xale yaa ngi ci gaañu ah? te biir kër yi nañ yaraat na ah? te sexualité nekkul nekkul sujet tabou beneen si waxtaan ak seen doom yi du dëgg ñu xam mhm. àdduna yeneen ngeen toog seen pooju nday na ngeen dem école ngeen jàngi ngeen wàcc ngeen toog seen pooju nday ah eh, lii lii baaxul de affaire ceci yooyu loolu baaxul euh, dissolution <laughs> crise HCCT ak CCE président ba yónnee na convocation ma bataaxal assemblée jeudi la nag incha allah le 29 eh Bougane a ngi nii ah est-ce que doo pousse ah ma dem waaw demal ah, boobu ndigal la buy na waaw mun nga ba pare da ngay puus. Ndiaye kay su ma waxul kii du ma wax. kon puusal. mais ki bëgg a wax nooy ma ne nga puus. affaire mbalit da puus wala ma jóg. mais pour quantité ndox. wàcc demal. maa bëggoon xam ne ñaata oto mbalit ñoo ramasse Touba dem mbëbës ñu jox la mbëbës nga géré ko eggali. waa ku andiwaat li du tudd man de. Ah, mais mais affaire bi la doon. demal. laas ne. mais xam nga ak ma ne boo fi waxee fii ci kër gi soit da ngay bëgg jël député wala maire wala nga ne da ngay dem bëbës gérer ko ku bëgg a xam mbalit nan lay toll ma ne li nga yor nii lan la li sowaas na de ma ne nga puus avancé hmm. bu ñëwaatee <laughs> bu fi ñëwaat si yow lay daal lii lii tuuti naa <laughs> xaaral ma toog hmm. <laughs> boo ko waxee dinaa la dóor Habib moo oh, leen oh. taxawal si bopp baax na L'As Quotidien mu ne Diomaye ndax dafa piéger bi Benno Bokk Yaakaar ci dissolution ACCT CCCCC loolu nag suñ ci waxee léegi du neex ndax ci kanam tuuti far yi ak ajaratu na bu koor dañ ciy ñëw te man ak ngoone am na lu ñu ciy wax ci kanam tuuti ayca ginnaaw L'As Quotidien avancé le soleil mu ne suppression ba xoolal député yi dañuy dem en session après de demain waaye tey jii am na benn kii bu nu wootee fële de Euh, Abdou Mbow. mu mm. wootee ca assemblée tonton Abdou moo wootee. Euh, assemblée nationale tonton Abdou. les échos mbiri Aziz Dabala gi bàyyi leen ko ah, ah ki Nabou ki Ngone enquêteur en ligne fond de fond feu de tout bois convocation session euh, extraordinaire bi Diomaye dafa bëgg tas CSE tas HCCT tas assemblée nationale. tasas tas tasar <laughs> en attendant le mouvement tas. député Benno yi fu mu ne nii ña ngay dajaloo ña ngay waxtaan ña ngay woote ña ngay woote organisation yaa ngi am doo ngi nee na ko sa arrogance ak sa manque de culture may ma lii mu nii loolu dina la per sa sa sa arrogance ak sa manque de culture républicaine loolu dina la dina la per du yàgg dara yoor yoor bu Serigne Saliou mu ñëw ci CSO e HCCT enterré ay waay jeudi baar gi yow jëlal le 29 août <laughs> bés bu mag bi. le 29 la ci lañ may jox 15 sama jour anniversaire ginnaaw suba incha allah 15 milliards yi ñu dajale fii nañ ma ko jox kado nag mbir fi naa ko c'est le jub jubal jubanti. mooy bi la joxee 15 milliards loo ci def. loo ci njëkk def bu la woon ne la 15 milliards yi récupéré nañ ko wala ñu koy jox. damay jooy. <laughs> xaw laaj bi dama xam ne 15 milliards maa ngi koy delloo nank ci problème bi dama koy jot a fare di jooy fari dinaa jooy jooy métti ñi ñi dañuy yaakaar ne maa bëgg fekk booba la làq ci ginnaaw 15 milliards yi ña ma ko jox ay eh, inspecteur jox la 15 milliards ne la demal laa ilaha illallah ah yàlla ba dina sutura libération mu ne conclusion sans appel de leurs enquêtes sur le double meurtre à Pikine Technopole jik fu mu ne nii cerné na benn association de malfaiteurs six mise en cause déféré tey euh, ci mardi bi devant le parquet Pikine Guédiawaye lay xewe Nabucor Sokoñ pour association de malfaiteurs assassinat acte de barbarie vol aggravé et complicité activement recherché mooy ngoone